jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo tey nag ñu tey fekk si ki nga xamante ne mooy Prince PA Events démb nag du 3 avril mu teg mise boo xamante ne amoon na solo trop mu nekk 1 million 3 millions 600 du moins teg 3 millions 600 balaa loolu sax dama koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Prince nuyu naa ko. ah mon frère maa lay nuyu di nuyu internet yuy suivre euh, wasaare wasaare TV la. wasaare làmb di nuyu. Euh, kilifa diine yëpp ak kilifa aaday di sant yàlla bu baax di sant sumay waajur di sant sama staff yeeg ak njabootu làmb ñëpp yàlla defal ñu jàmm réew mi am jàmm feebar bi dem ci jàmm ku ci nekk ci li ngay jëngu yàlla defal la ci jàmm. Hmm. Euh, defe naa ne jotoon nga taxawal benn komba waaw ah, amoon nañ ñaari komba euh, Mourdia Thiat ak Fadel Arma Thiat Mourdia déjà soobee yàlla. beneen combat bi nag. Euh, fëggale la ak armée mais jotaguñu ibbil pour ñu jël deuxième date quoi. voilà da ngay jël dimanche après nga ñëw jëlaat samedi suñ ko ibbee incha allah suñ ko jëlee rek dinañ la ko yëgal. Euh, mais dama daan gis làmb bu daan tijji lutte avec frappe bi moo daan naa takkarnaase mais saison bi lamb yi dafa tijji promoteur yëpp daw ku ci nekk wut sa benn journée tëgg ci simple ki ci mel ni Fallou Ndiaye gis naa day dàbbaliwaat loolu naka la leen dikkee. waaw xam nga tribune euh, làmb bi mbër yi vingt lutteurs ñooy bëre pour combat avec frappe mm-hmm. mais soo xoolee euh, lutte simple mun nga def day am ay cent trente lutteurs ça permet à beaucoup de lutteurs ñu ñëw exercer wu bu dee gagné ñu sax ñu am compétition te lool c'est très important ay culture bi dafa pure quoi. j'aime bien li ngay dund parfois sur lutte simple bi munoo ko dund sur lutte avec frappe bi lutte avec frappe su combat yi neexee neex na su neexul neexul mais lut simple da ngay gis lutte pure et dure booy dañuy bëree da ngay gis technique da ngay gis ambiance surtout Mbayang Loum ak moomoo temps yi déggoo neen ñoom nday faatu côté bële ak ñoom baabu ngom beneen affaire la yooyu yëpp daal lu doy waar la daal mhm. lutte simple moom macha allah quoi. defe naa bi mooy sa première fois nga tëgg lutte simple. non tëgg naa lutte simple en 2014 c' était le premier mars tegoon mise u deux millions cinq cent defe naa euh, Iba Mar boobu caaka fay moo ko jëloon. mais ren la moo la poussé. Euh, nga ñëw ne dama koy ubbee lutte simple parce que gis nañ promoteur bi ngi tëgg est-ce que yomboon na ak mise bi nga tegoon. non Fallou moo ma inspiré nag parce que temps bi gàttoon na xam nga man j'aime la fête de l'indépendance. waaye fête de l'indépendance bëgg naa ko te année yi yëpp sooy xool day tombee du ma ko du ma ko mën a tëgg quoi parce que nekkatuñu si logique gu di xëcco ay date quoi donc sam nawle promoteur su ko jëlee rek da ngay jéem a xooli leneen. mais démb journée bi naka la naka la naka la demee woon parce que gis nañu mbëri ñëw nañ mais ñenn ñu ci bëri gisuñu leen naka la demee woon. Ah, mais nag journée bi dafa tombé ak kii dafa tombé ax fête mooy souhaiter bonne fête de pa et lundi Pâques à tous nos frères et sœurs chrétiennes soo xoolee làmb Joal Joal Fadiouth Djilas île du Saloum y a de chrétiens là-bas y une grande communauté de chrétiens là-bas voilà donc ñooñu ñooy gën di ñëw si lutte simple léegi tey ñooñu su suñu nekkee ci fête ah dañuy nga lax mais moment bi nga nga xalaat loolu jëloo woon décision jëm ko pousse parce que boo xoolee majorité bi bu ñu demee kii parce que gis nañ sax mun mënoon naa gën a fees noonu moment bi nga demee ba sentir loolu wala dem ba yëg ko xalaatoo woon annulé bés mais bés bi dafa réussir waaw ouais, parce que tey on a permis à beaucoup de Sénégalais d'exercer Mbaye Ngloum a exercé <laughs> def na liggéey na yóbbu këram euh, Momo Ngom liggéey na mbër yi fa ñëwoon am na ñu ci am compétition y a des gens acheter des billets ces gens-là il faut qu'on le respecte ñooñu dund nañ ko kontaan nañ génn nañ man mi ko tëgg kontaan naa su ma demee ba jëngal sama yaram nga war a xam ne neex na donc affaire bi làmb passion la ñun dañ koy def passionnément bu dul dara da ngay ñëw toog seetaan làmb bëgg sa xool neex stress bi ngay génneel tey ñooñu ñi ñëwoon di seetaan stress bi nga leen di génneel ñi ñëw foofu daan fa seen doole jël seen ñàkk loolu su la ko yàlla fayee saawaay <laughs> beneen affaire la de waaw waaw. mais démb dañoo dawal lu yàgg dañoo dawal euh, mbapat bi di daw mbapat bi daw mais ñu jékki-jékki gis beneen prince boo xamante ni xàmmewuñu ko mu nekk di am lu muy génne ci xolam moment boobu parce que dafa mel ni dafa am ay bagages yu ñu doon dugal nga jékki-jékki ñu mel ni daal xàmmeetuñ prince loolu naka la demee. nga àdduna hmm. day am ñuy gas am ñuy suul. tey man père Gaston sama papa la bu dara bu dul dara ah comprendre moom ah sama papa la woon père Gaston xam na kuy sama xam na kuy sama ndijaay man xam naa kuy père Gaston te père Gaston xam na ma làmb nag làmb la dañuy liggéey du père Gaston moo indi barrière mais parfois du promoteurs yi ñooy am problème y a des intrus yoo xam ne ce qui leur arrange c'est la divergence des promoteurs et c'est ce que nous devons refuser nan bañ loolu buñ ko nangu man yooyu awma si problème te c'est l'histoire passée on avance ah on oublie et on avance. mais dañ la gis nga xataraayu nga xataraayu di siisu gars yi ñëw téye la ñenn ñi dékkale ko nga am kàddu yoo xam te jot nga ko génnee danga xamoon li nekk ci ginnaaw loolu wala. mais day am ay saboteurs yi nekk ñoo xamante ne ku ñu àndal yow yaay buur ku ñu àndul wax am nga te ñun nag ay noble lañ promoteurs yi c'est des nobles yi mais yow ñoom dafa am lu jot a jox seen diggante wala. saay gis nga tamaate lokati lokatee ngay jeexal. Hmm? mais day am fu muy toll da ngay jàmm tamaate bi togg sa ceeb avancé. y a des choses yoo xam ne soo si bëggee di dugg si ay détails comprendre nga tu donnes la promotion à des gens qui ne le méritent pas nit ku nekk am nga sa nawle sa nawle mooy gor man ku yóbbu sama yaay màkk ku ma yóbbu sama yaay màkk ah ni ma bëggee sama yaay. du ma ko war te su ma gisee ku war ki yóbbu ndey kenn màkk man du ma jëflante kooku te xam ne fu mu la jëmee du jàmm man nekk ma si si si bagage yooyu quoi yooyu moom. dafa mel ni dafa mel ni dafa am koy waxal de su du ma gaar waale man góor laa duma jigéen saa yi. loolu nga yóbbu sa yaay màkk ëllëg ko war la. comprendre man sama yaay bi ma jur. bëgg naa ko bëgg boo xam ne ku ma ko yóbbul màkk yàlla bu ma ko kenn yóbbu yàlla naa ko yóbbul sama bopp wala samay mag ak samay rakk yóbbu ko waaye ku ma ko yóbbul màkk. xalaatuma laa noonoo si àdduna loo ma def ma baal la parce que day toll foo xam ne sa diggante doomu aadama dina la def lu ne gàññ nga xool lenn lu ngeen dundoon si si auparavant nga nekkoon si guddi gu lëndëm mu taalal la torche nga xam fi ngay jaar ba mën a tuur ndox képp déggoo ma de alaaji di saf saw léegi nii am na ko ma àndal mu saf saw waxatul biñ ko wanee wanag ki ko wan wanag gi man maa ko wan mun naa mun na ma dugal àjjana doomu aadama dafa foor ku xamul doomu aadama rek mooy pexeel doomu aadama yàlla dafa jël dafa ne wala xab karam naa ni banni aadama dafa fonk doomu aadama te ku si nekk yàlla am na fu la bindee ak num la bindee ak lu la fàggul alaaji nan bàyyi di jéem a faagaagal koo xamut fu mu jógee ak cër gu mu am si suñu borom cant yàlla gi may cant ah cant yàlla bi may cant mooy que ni que man nga dem tey ku mel ni Touba murid yi ñu ñu bëree hmm? ku toll nu Serigne Abdou Karim borom Makarima Allah recevoir la yemu si. mu ànd ak yow yóbbu la ba si toolam jëflanteex yow teraanga nga ñëw nekk si suy wayadi yi di warante ka def yooyu saa yi ah yow sa gëm dafa des fii nag gëm nañ waaye wóoluwuñu mais mais mais démb dama dama ñu bari dañ doon laajte ana parrain bi ñu bari di laajte parrain bi fu mu dugg parrain fu mu dugg ñu naan parrain bi ñëwul euh, da nga amul woon parrain wala. amoon naa parrain Assane Diallo la ma koy gërëm bu baax muy un grand monsieur un noble qui a beaucoup fait pour la jeunesse qui a beaucoup travaillé pour le président son excellence monsieur Macky Sall c'est un gars boo xam ne c'est un opérateur économique qui fait travailler des gens au niveau de Pikine il avait une boutique là-bas dafa jóge foofu dem Kër Massar dafa def teranga ba nga xamante ne tey jii taxawoon jóg pour ñëw stade bi loolu do xam nga lépp calcul la nous sommes pas des yoo xamante ne il faut être intellectuel dans la vie être intellectuel c'est pas nga dem jàngi école comprendre nga am na ay ndongo daara yoo xamante ne ñoo gën a nekk intellectuel euh, ñu ñu dem école ana sëriñ buub comprendre nga intellectuel dafa baax xam nga fi may waxee. kon baax na. Euh, non mais tontu woo ma de. parrain bi parrain bi laa laaj parce que ñu bari dañ na parrain bi ñëwul. ñii ne est-ce nekkul prince dafa jékki-jékki rek ne parrainé naa diw demul seeti ko wala est-ce que nekkul dooloon rafetal bés bi rek ne diw mooy parrain bi te amul parrain. prince xam nga kan la njëkk a tuddee drapeau. El Hadj Moustapha Ndiaye. kuy El Hadj Moustapha ah déet soo ko xamul moom dañuy arrêté émission bi. xamoo gu ma ko dama bëgg ñiy seetaan non dañuy dégg tur bi te xamuñu ko mais xam nga yow mi nga xamante ni yaa jàkkaarloo caméra bi yaa ni leeral. ñu xam la 17 1. waaw peut-être man mën naa ci jàngee. Basirou Basirou saa ñam na de El Hadj Moustapha Ndiaye moom soo ko xamul moom instant bi foog nga defaat ay recherche si làmb El Hadj Moustapha Ndiaye a fait pour la lutte c'est monument de la lutte c'est quelqu'un boo xamante ne bokk na si ñu participer sur la révolution de la lutte on dit que la révolution industrielle est la transformation profonde de l'économie marquée par l'utilisation de la machine l'usage d'énergie issue de charbon est une organisation nouvelle de la production mais la révolution de la lut suñ koy wax deux étapes la El Hadj Moustapha Ndiaye export de nou nous ndaw Ndao Tyson lorsqu'il a les cachets mais léegi lan moo tax nga nga nga nga tuddee ko drapeau bi ba noppi ëlbati ko tuddeewaat ko keneen lu waral loolu. non kenn la ñu tuddee drapeau bi muy Assane Diallo mu mérité ko. waa non mais nit ñi dañu ko gisul. waaw te yónneewul. ko de. mais dañoo bëgg xam nag li tax waa non xam nga lu bay leerul ci boppu nit ñi. Hmm. ñu bay ne nañ prince amul amul amul amul parrain. léegi non xamuma ko. Hmm? yéen ñi koy yéen ñi tëgg làmb kay xanaa yéen pare xam nga lan la mooy nga jël nit jëmmal ko si dara pour ma boucler ko Assane Diallo lépp lu ko waroon si bés bi def na ko te presse bokkul si wax alekatu drapeau yi de. ale waxaalekatu drapeau tuddee la drapeau di wax ale yow bokkuma si loolu musuma kaa def. boo mu tudd dañuy tuddee sëñ Bass Daapo ah déet damaa bëgg mu leer de wasaare làmb ngay waxee. yaay ma la man saay gis naa bu ne bàyyi boobu mu dee pour nii dugal ma nii si pax. dugaluma la damaa bëgg mu leer xam nga xam nga xam nga xam nga bëgguma bëgguma ñu ne prince dafa kii parce que dama bëgg li gars yi di ngungune ñëw laaj la ko parce que ñu bari fi mu toll nii laay waxaaleel man fi mu toll nii. parce que ñu bari ñoo ngi wax yenn yi mais dama bëgg comme que prince toog na mu leeral ñu ko ci kanamu ñi nga xamante ni ñooy seet ñoo ñu seetaan ci wasaare. xam nga bu ñuy commencé dama laa leeralal loo déggut dama laa ne gor gor lay waxal ku deretu gor di daw sa yaram man kooku laay waxal mais man dama sentir li ngay wax am na koy waxal mais man kaay wax la nekkuma ci ay polémique pour muy clair cette histoire laa bu ñu doon wax noonu close naa ko ndax su suma yaay duma si waxati réglé nga ko ak ka taxawoon loolu. ku ma ko wax moom awma lu may réglé ku nekkul ku réglé wut il faut être bien dans sa tête. mais xam nga man man xam naa kan la mais du tudd gannaaw tu nga nu ñu nat ci mais sa diggante yow ak moom non du ma ko fi tudd sax nag du ma ko fi tudd mais sa diggante yow ak moom lan la prince. lan la wallaahi Azim bu dee gor la rek moom bés boo ko dinaa la moom ku ku dem xam nga kaay ma la benn affaire man du ma ne nit baax na ba si yàgg ma ne gor man képp ku ma fi taxaw ne baax na baax nga ax lu mën a xew duma la ne danga bon ki ngay wax noonu moo taxawoon 2S ne mooy la paix ama peace moom moo ko waxoon moo taxawoon 2 ne prince mooy la paix foo ko gis muy dox ci jàmm lay dox su demee ba eggax fii prince c'est parce que deret bëñ bi weex bi am na deret bu lal woon ci suuf te jëflante neen loo xam ne su ma ko waxoon du taxawati fenn wax am na loo xam ne jaru ko man du ma nit koo xam ne damay nekk si ay tres di waxante affaire yooyu moo tax bugguma dugaat ci affaire boobu man suma yaay laa am moo ma gënal lépp ci àdduna man bugguma dara sama diine rek laa bëgg sunnati comprendre nga sunna yonent bi rek laa bëgg taalibi Sëriñ Tuubaa laa sama sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar si sunna la ma yar si sunna la laa njëbbaloo si moom si laa yeesalee sama njëbbal si moom sunna xam nga ko. voilà kon jeex na man awma ma xolu kiñaan du ma kiñaane mais duma tooñ kenn duma tooñ. du ma tooñ bugguma ku may tooñ ku tooñ mun naa la baal mais am na tooñ boo xamante ne day am hypocrisie l'hypocrisie l'ingratitude la lâcheté c'est pas bon il faut que ñu bàyyi loolu nit faralal nit sax ne kii nga faral jeex na mais par parloo moo baaxul tey da ngay dem seetaan lu simple tu vois les gens kii toog nii kii toog nii kii di supporte kii kii di supporter kii nga daan ñu àndaat dem lëngante tooñante grand place ko ñëwaat loolu la comprendre nga fi donc moom ñu avancer man je préfère qu'on parle ah de nan la ñuy def ba làmb avancé nan la ñuy def ba promoteur yi doon benn am benn président mu bañ a am ñaari kuréel comprendre nga ces gens yi nga xamante ne dañ ci nekk di jaxase nit yi di kii ñu arrêté ko parce que amul sens làmb du avancé ah noonu làmb du avancé xool bu rafet làmb yëpp soo leen dajalee feesuñu cette place c'est dangereux des gens yoo xam ne ku si nekk yéene woo sa euh, morom jàmm ñun dañu am xaalis si làmb parce amul ku si am xaalis si làmb doo mës a gis promoteur bu liggéey si tëggal làmb ba tabax si immeuble amul du am. du ngeen da ngeen di tëgg oh, xaw ma dañuy tëgg du perte xaw ma tu peux de la mais droite nga jël ko de la mais gauche mais gisagoo ku tëgg làmb ba tabax si immeuble du am ala kulli am na ñu ñuy jéppi manger des gens yoo xam ne dañ may jéppi parce que samay nit lañ comprendre nga mais xamuñu man kenn du ma sàkkal lu may def góor laa góor yàlla laa fu mu lëndëm dem mun naa faa jaar man duma ànd ak kenn am na ñu bëri ñuy wax suñu àndut ak kenn duñ dem doomu aadama jaayanteel ba nga am sa ñaanu waajur sa ndey sa baay nga yéene ñëpp jàmm après tu avances nañ wax si. lu ñuy def daal ba dajale promoteurs yi ñu doon benn kuréel ñu yërëmante état bi lu mu war a jàppalee làmb mu jàppalee ko ko parce que soxla na ko comprendre ñu avancer ñu bàyyi détails yi amul problème. ok est-ce fi mu toll nii dajale leen ngeen doon benn dina yomb parce que su ma juumul euh, booloo bi ci yéen la woo njëkkee gannaaw mbëri sax léegi ñoom daanaka léegi ñaari pàcc la mbër yu mag yi ak xanaa mbër yu ndaw yi. ñoom est-ce que yéen waroon leen mën a dajalewoo seen biir waxtaan ba juboo état bi doog leen a mën a fekk si parce que yéen su ma juumul toll leen foo xamante ne ñaari association war na mën a am ci ay promoteurs. est-ce que ça n'arrange pas l'état que ñu parce que nous sommes bêtes moo tax ñuy def divergence soo defee bale bi su ko doonee say ku koy damm waaye soo ko tasee mu damm nañ am intelligence il faut être intelligent que les promoteurs soient Pa Abdou Fall mooy président de tous les promoteurs du Sénégal gason et président d'honneur Luc Nicolas Woreva président d'honneur la ñu si des ñëpp si ginnaaw Pa Abdou Fall la ministre bi na organiser AG comprendre nga na organiser AG promoteur yëpp dem kan moo bëgg doon euh, président nga yëkkati sa loxo am courage avant loolu su ñu nee tey bés la quinze maanaam si weer bii di ñëw promoteurs yi dinañ def seen AG mais fépp AG lay am écurie yi sax dañuy AG mais ménagères yi ni tax ñoom amuñu problème parce que tous les ménagers dañu tënku si baabu mais pourquoi ñuy bëgg chaque jour def làmb yëfu barbare ah soxorante iñaan iñaanante comprendre moo tax du ñuy sponsoriser on prend pour des gens yoo xam ne c'est des gens qui sont pas instruits tey jii xam nga tey am na loo xam ne mënoo ko wax du lépp loo mën a wax ko mais làmb mënul professionnel parce que pour mu professionnel il faut qu'il des gens instruits mais soo si duggee dafay sensible nit doo ko xeebal comprendre nga xam-xamam mais mun nga bañ a am xam-xam am xol nit ku amul xol am na ñëpp am neen xol da ngay jël sa xol bi ngay raxas ko ba mu set sinon nga jël kurus laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu set soo ko deful sa àdduna du baax sa alaaxira du baax soo dee safara nga jëm de iñaan si soxor ku mu ne si yow noppalu man li ma bëgg dama ñëw ci c'est important li ma lay wax mam Ansuña moo koy wax xam nga kuy mam Ansuña mooy papa Serigne Cheikh ak Serigne Moustapha nekk Sirman di walliwu yàlla kaamin nee na ku iññaan si soxor ku mu nekk si yow sa àdduna du baax sa alaaxira du baax soo dee janna ba nga jëm diggante ndi tax nit dafa dangereux il il faut que na la parce que ba léegi fi toogee ba léegi diggante nit ak nit rek nga may wax diggante nit ak nit nga may wax mais nag comme que gannaaw foofu nga ci mën a yem man tamit foofu rek laa koy yem. ma wax kii prince xëy na xamoo presse dara dérangé wu ko. gis nga lii xew démb xew démb moom man xam naa ne metti na la man xam naa loolu. bu dee metti na ma yàlla bu ma gisante rasulillah dégg nga. mais metti na lan moo may metti damay gis lu dul yoon ma mën ko faj dama koy faj jeex na mais dara mettiwu ma de. Hmm. man cent franc noos mille franc noos yàlla laa gëm Sénégal xam nga kaay ma wax la benn affaire dañuy woote jullit mais duñu ah du astafurlah parce que su ma nee du ñu ay jullit loolu day day diis mais lu doy waar mooy jullit dafa dafa foor mooy si yonent bi nga tënku ku tënku si yonent bi mooy si sunna nga tën tënku xam nga luy loolu yonent bi ngay roy mooy gën di mbindeef nii lay doxee nga bëgg doxee neneen. léegi xam naa ne foofu buñ fa buñ fa buñ desee dinañ fa yàgg mais pour làmb waaw mooy àdduna suñ ko defee dañuy tënk rek avancé. nit ak nit ñooy taaralante fële donc sa àdduna da ngay c'est la vie de tous les jours tu vis xamoo man maa ngi wax ay yow balaa nga koy dugal wóor na ma est-ce que danaa nekk ci àdduna ngay daw di xëccoo di xeex loo xam ne wóoru la ni ci suuf la lay fekk ana ñi fi jóge ñi kilifa yu fi jóge temps yi hmm? kan moo leen waxoon dañuy de ils avaient plein de projet nit ñi dañuy gëmu gëmuñu gëm yàlla wóoluwuñu ko c'est ça le problème nit ki soo gëmee yàlla wóolu ko dara du la déranger barki alxuraanul karim dara déranger wu ma billaahi wallaahi tallaahi tout ce arriver pour ma choquer d'un coup après ça passe parce que loolay gëm gu wóor nit da ngay gëm te mu wóor gëm bi dafa oyof trop fii dafa oyof soo gëmee dëgg lu am di nga xam ne yàlla la da ngay jéem nag doo toog naan yàlla baax na de mais da ngay jéem et nous sommes dans un pays boo xam ne au lieu d'aider les jeunes à avancer dañ lay gasal kaam di la bu wax nga fiy dugg lu muy avancer liggéey du ñu liggéey man je préfère su may def émission on parle de comment on fait pour faire avancer les jeunes le président a annoncé que tey jii dina def trois cent milliards milliards ci jeunesse si jeunesse bi. léegi ñu ne trois cent milliards yi dinañ ko def ñett cent milliards léegi chaque année euh, le représentant ki nga xam ne moo yor DER ah celui qui représente DER war na président de la république ne ko temps de jeunes euh, accompagner nañ leen budget bi temps la mais léegi bu dee jeune bi encadré wuñu ko pour mu xam nan lay def ba pro ba def projet am suivi projet mais fu mu koy defee il faut pas créer des employés il faut créer des entrepreneurs. léegi ci laa bëgg xoolal prince ci loolu laa bëgg ñëw parce que yéen ñëpp da ngeen ne làmb doxul mais ci naka ngeen mën a doxalee làmb parce que da ngay gis koo xamante day tëgg làmb du am sponsor ñenn ñi dégg naa ko bokk ci ñenn ñi ñu ne dañuy jël ay ay ay taf rek taf mais du sponsor yu ñu leen di fay wala boog du nàng wala boog dañ leen di cofal. est-ce loolu tamit dina doxal làmb taf ay kii rek te fayuñu la wala boog tëgg làmb te amoo sponsor est-ce que bokk na ci li nga xamante ni yéen da leen jëmal jëmal kanam te ngeen di jël ay xaalis ba di ko jox ba mbër yi. c'est pas professionnel. c'est notre faute à nous tous mais parfois day doon ay relation alaaji du lépp nga mën a wax ñun si dëkk bi lañ dëkk xam neen li fi xew tout tout ce qui se passe moment sponsor amul c'est des relations. sponsor amul ci làmb ji. je m'immisce pas dans les affaires des autres ça m'intéresse pas. maanu. li ngay def. ça passe maintenant dans la lutte. relation avec le telle société. il y a quelqu'un qui va te mettre en rapport ak le directeur ou quelqu'un qui travaille dans une telle société mu sponsoriser la mu mu defal la appui. teg la loxo daal Sénégal làmb yàqu na dematul. on a plus làmb yàqu na te prince nangul bàyyi keneen ku mel ni moom nangul bàyyi. nekkul prince nangul bàyyi de prince il vit pleinement euh, sa passion prince su ko amee lu dëgër loo xamante ne ñi ngi prince mi ngi làmbaatu comme tous les jeunes ñi kii mi ngi jaay dibi complexe Taïf euh, kii nga nekk complexe Xelkom mi ngi jaay dibi parfois mu dóoral la traiteur. parfois mu dóoral la leneen xam nga lan moo tax day xool day cuus fii cuus fee parce que dëkk la boo xamante ne duñ la gunge tey jii si tu as un projet fiable tu l'amènes à la banque si tu a pas de garantie on te on te prête pas l'argent heureusement que DER est donc je fais pas la promotion de DER defuma ko parce que aw ma benn avantage mais c'est quelque chose qu'on a mis en place léegi il faut qu'il des gens yoo xam ne ils vont encadrer les jeunes appeler les jeunes à venir on di dit que c'est comme ça que ça se passe da ngay ñëw ci ameen ton projet wala amoo projet ñu ne la lii soo ko defee dina dox nii nga koy defee ñu accompagne ñu financer ko comme ça ñoom à la fin de il ils pourront mettre sur la table du président ne ko ah président tu nous avais dit cent milliards on a donné quatre-vingt-dix-huit milliards mais suñ ko jeunes yi suñu xamul léegi lu ñu koy def ay quarante mille quatre cent mille un million des relation euh, tu es sur la da nga nekk ci parti bi yaay ci mouvance bi ñu jox la c'est pour le Sénégal dama man xam su may wax nii xam naa dañuy xaw a génn làmb mais man j'ai un problème de développement de la jeunesse man mooy. Ah, mais loolu dama bëgg dama bëgg dama bëgg ñëw ci làmb tuuti. dama bëgg ñëw ci làmb. parce que parce que li ma lay wax léegi rek sponsor yi naka ngeen def bu ñëw parce que yéen yéen comme ni nga ko waxee sànq euh, doonu leen benn. ba tax na prince tey day ñëw fay euh, sëñ Bas cent mille francs man man a mën ak yow ay gaañal lañ man ma ñëw xam na yaa ngi koy dox ma ñëw fay Bas cent vingt cinq dèjà dama laa ñàkkloo. waaw ah, alaaji xam nga benn affaire dafa am euh, lu làmb comprendre nga lu làmb rek lu am lu amul valeur rek. Euh, du dox si on voit que ñii c'est des gens yoo xamante ne yéenante wu ñu jàmm mais duñ jël seen produit du ko dugal foofu nga tëgg mbër kii di xeex kee kii di yàqal kee sponsor yi xam nga ñan ñoo ñan ñoo ne ñan ñooy sponsorisé c'est des gens yoo xam ne dañu jàng école dem université wala ñu dem formation dugg ci société te la sénégalais su demee bay toog ci biiro xam nga comme nan lay waxee yow combien d'amis yi nga am yoo xam ne dañ la doon wax Ousmane wala ñu ne la Alaaji mais Ousmane loolu lañ la wax Ousmane léegi moi le Baol Baol je viens là-bas ma leen wax wala man la soose comprendre nga ma ñëw bëgg fa indi benn affaire boo xamante ne tagul fenn duñ la accompagner créer ay affaire pour ñu ñëw mais on a un problème de culture bëgg suñu culture tey ku fi am xaalis euh, suñu lakos yi la ñuy ut jiin moo tax duñ développé donc ñoom il préfère sax ñu dem sponsoriser football def si yenn xaalis yi wala dara kan ñu def ko si làmb parce que dañu complexé problème de complexe la quoi société yu fi nekkoon tam dañu daanu société yu bëri dañ doon am budget de communication yu solide amatuñ ko tey ñu mel ni orange ak ñooñu ils sont tey impôt comprendre nga état mun na régler l'état mun na régler problème boobu. état mun na régler problème làmb euh, am na fi fonk Covid ñaata moo dugg si làmb soo ko waxee da ngay xool relation kii ngay bañ mu meeral ak dafa metti ñun daal xam nga fu mu nekk nii lan la lu waaye xam bootee sa doom noo mën a nduggee nduggee ko soo mënee tëgg sa làmb nga xool noo ko ay parrain yëpp léegi dañ koy def pour fatt ay turog yooyu comprendre nga mais parrain dafa na waxaale dafa naqari waxaale kii day bëgg tur kii nga ñëw forcer ko ko ne ko ah sama làmb ji yow laa lay tuddee comme comprendre nga kii nekk sa xarit man ay relation rek samay xarit ah bëgg promouvoir jeune benn sinon ma rendre hommage laay def quant à bi nga doon wax mois je le connaissais pas xaw ma ko woon daan naa ko gis nag nii mu may gis peut-être mais c'est un ami à Modou Lo moo ko woo ñoom ñaar ñu waxante mu woo këram ma ñëw ñu waxtaan mu nangul ma ko jël teraangam jox ma ko bu ñu demee ba làmb ji ni na suba la jël na teraangam jox ñu ko jël drapeau bi téye lu ko tënk ba tey ah am na détails yu ci am mais moom moomu gor la et c'est l'essentiel et on a organiser un événement qui s'est très bien passé il y avait de l'ambiance nit yi kontaan nañ man mi ko tëgg de kontaan naa alhamdulilah ala kulli aali allah lu mu bind kenn mënu ko effacer ce jour-là il devait y avoir ces ci stade bi mindeef mënu ko dindi loolu moo waroon am jour boobu loolu weesu na alhamdulilah. mais yaa ngi waaj tëggaat beneen lutte simple. bëgg naa tëggaat Kaolack bëgg moom sax comme làmb la nañ ko secret rek comprendre danaa tëggaat ay lutte simple ay lutte simple ay lutte simple man doomu séeréer laa dama bëgg lutte simple dama mën a bëre dama ko xam dama koy foowee chaque dimanche comprendre nga temps yi laa jël tuuti ndox sax comprendre nga non <laughs> sax ah yàlla na ñëw bu baax naan si gazeuse yi ba sax biir bi rëy nii mais lu ma bëgg la di ko fooy ak ma complexe bi comprendre sport la c' est sport de chez nous dañ ko war a valoriser làmb tey xoolal nit ñi lan moo gën a rafet ministre bi ñëw sol jas neeram toog comprendre nga tëggkat bi di tëgg woykat bi di woy mbër bi di bëre loolu yëfu buur la mbër bi il se sent roi c'est roi la woykat bi naanaan la dafay woy luy jóge ci dënn di dem ci xol séeréer bi di kontaan wala olof bi nga koy taggal maamam muy kontaan mais ça c'est comme ça que ça doit se passer da ngay neex nen neexal xol yi il faut que ñu dóor si comprendre nga nen bàyyi kaani ak mami bi day wàññi <laughs> ay affaire nen jël suukar ak lem dóor ko suñu xol yi ñu avancé ak meew suñ ko mënul ñuy laa ilaaha illallaah euh, boo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax. ah sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax. sant ko si nuñ doonee ay jullit gëm rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah, doon ay taalibe am ay waajur yu baax bëgg leen di ñaan ñu yàgg fi comprendre nga di ñaanal ñi nga xamante ne bëgg nañ ñu comprendre nga ñu ñu bëggul it ñu leen di ñaanal lu tax ñu bañ ñu ñu bañ ko gis si ñun wala bu dee si ñoom la nekk yàlla raxas ko si ñoom di ñaanal ñëpp jàmm. balaa mu fi jógee sax balaa mu fi combat tey bi combat la boo xam ne nii pour man nii la mënoon demee parce que compétition dafa baax Covid nag c'est quelque chose boo xam ne c'est divin yàlla moo ko indi muy mbas yàgg na am ci àdduna dañ koy sante yàlla mais mbër yi nekk si seen forme bu ñu waroon nekk man loolu laa gis. te ñoom ñaar ñëpp bëgguñu woon daanu ay <laughs> jàmbaar lañ def nañ seen combat man bon je seetaan naa combat boo xam ne ku si nekk si ñoom ñaar def nga effort. que ce soit de Eumeu côté de Eumeu Sène que muy Lac de Guiers Lac de Guiers a gagné on le félicite Eumeu l'encourage il n'a rien perdu il a été roi des arènes il a livré d'excellents combats dese na ko ci kanamam moo war a jox revanche Bombardier Modou Lo yoreel na ko revanche. mun na tendre la perche à Balla Gaye euh, wala keneen c'est ça sport la rek sant yàlla rek ñaanal soxna Baali yàlla yàggal ko fi mooy nuyu sëñ sama Mbàkke di ñaanal waa complex bi jeune ko moom jeunes yi dañu war a avancé mu ngi complexe Xelcom la mu ngi ko ibbi fii ibbi ko Ouest di def te ay comprendre nga nga am sa événement tey jii yow xam nga léegi maire yi sa yaay nga nar ko toggaloo mu war a woo maire yeeg yooyu da leen di woo ñu indil la ko. treize heures ñu indil la ko indil la ay plat ak situation Covid bii comprendre nga c'est propre ay gaa la ñuy sol comprendre nga nit yi toog ñu jox la kudd bu nekk si loolu mooy avancement te su koy def yow boo di moment où nga naroon toggloo sa tante affaire yooyu kër gi jaxasoo moom day employé ay nit ñu def ko c'est de l'emploi PME PI PME PMI bu ñu xeeb petite moyen entreprise loolu day de développer réew créons beaucoup d'entrepreneurs état bi dafa bëgg jeunes yi kontaan yu mel nii ba ñu noonu la rek créer des entrepreneurs dans tous les domaines que ce soit dans le domaine de l'industrie dañu war a industrialiser suñu dëkk ñu arrêter di indi mbëri li may wax nii ça concerne la lutte mbëri seen carrière dafa gaaw de. dafa gaaw foog ñoom ñu prévoir loolu di créer ay entreprise entreprise nag di nga ko xeeb waaye jaaykatu ginaar yu bëri fu mu nekk nii ñoo tabax immeuble yi des gens ñu ngi jóge Guinée ñëw yor ay boutique fii ñu leen ne xeeb tey ñu tabax ñoo moom kër yi ñooy loué Sénégalais yi ñooy loué booy Dakar borom costume yi borom boutique yi ñoo leen di loué il faut ñu bàyyi xel si loolu dañ ñaan yàlla jàmm si dëkk bi ñëpp am jàmm xol yi féex ah. suñu xoolee suñu xalif bi sëñ Muntaxa ni muy réewee mbégte boobu mbégte bu ñu xañante mbégte nañ ko dund waaye nag soo bëggee di lokkati nit yi prince da yaru na de yaru na prince dal na waxu yambar bi soo ko basé woo ba bëgg nag dugg si gardam mu jaay la bakkanam loolu rek moo fi nekk nañ yéenante jàmm. noonu lay demee ci Wassare ma tey prince lañ dajaloo lañ lañ dalaloon bëggoon waxtaan ak moom ci lu bari xanaa di leen jox dig daje ba beneen yoon.